L'histoire m'a donné raison. L'histoire m'a donné raison. Le bref, il va avoir de votre agressé. Je vais les connecter. li tubaab bi naan le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité mette ses chaussettes sant naa yàlla sant mbooloo Thiès bi taxaw reconnaître ma naan ne man maay président de la fédération urbaine de Thiès li firel na ko direction parti bi nangul na ma ko li tax ñu nangul ma ko mooy sama jom sama fulla ak sama engagement politique coow li bari na wax ji ñaaju bëri na ak yàq der bi xool ngeen suma rakk bu Ndiaye bi nga xamante ne maa ngi koy ñaan mu rejoindre troupe Soleil Levant dem nekk ci wetu Sanekh jàppale ko ci théâtre bi muy def taxaw na ne maa ko dóor ànd ak ay neefri agressé ko tey ma yàlla dinañu àtte ñun ñëpp taxaw na ci rajo yi tuumaal ma taxé ma de voyou de bandi ne dama ko agressé yàlla mi dara teewul àtte ko tey bi direction parti bi yëpp ñëwee à leur tête Omar Sarr xale yi njëcc ko dindi bande collante ñu xool xam ne dara jotu ko lii rek procureur waroon na autosaisir ñu arrêté ko pour faux et usage de faux parce que il a utilisé l'édifice euh, l'édifice public muy hôpital régional de Thiès pour def de faux pansement waaye nag comme direction parti bi ñaan na ma Omar Sarr ñaan na ma ne naa ko baal jéggal naa ko ko waaye nag waaye jàmm mooy man maay patron wu parti démocratique sénégalais fii ci Thiès ñu nangu ko ñu bañ ko man maa yore majorité bi li fi teew tey wane na ko ba ñu buggee jàmm danañ ko nangu parce que nangul nañ ma ko la dama taxaw bloqué salle ñoom ñëpp ñu taxaw ñaan ma ne ma yaa fi nekk mbooloo bi yow la ñu àndal nangul nañ la ko donc yéen ñëpp fekkee ngeen. gis ngeen li fi xew xam ma ne recevoir ñu par commune suñ ko waxee dañuy wax lu leen neex ils ont la fédération urbaine la preuve capitaine Niang mooy coordonnateur commune Thiès Ouest Cheikh Fall Mbaye di coordonnateur nord Magay Sarr mii di adjoint au maire nekk coordinateur est te ñoom ñëpp ci salle bi lañ nekkoon ànd ak l'honorable député Anta Dieye ak le Saliou Mangane benn camp moo fi am mooy le camp de la vérité que j'incarne que je suis le président de la fédération urbaine de Thiès li la mais lu mu si xaar du lenn ñaan nañ ma xam nañ maa yore fédération maa yore PDS bu Thiès man maa njiit li lii wane na ko war nañ ma léegi ne ñu ngi recevoir beneen tendance pour wala ne benn tendance moo fi am muy man damay arrêté lii ñoom ñëpp ñu génn